defee dañuy jàll rek ci Guinée Conakry sëñ sa sëñ euh, Babacar Ndiaye sëñ njaay Saliou mooy jël kàddu ci seen tur ànd na ak sëriñ Modou Thiam ñu teew fi teewaaleel fi alaaji Abdou Thiam mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ Tuubaa ji foofu ak bokki taaliba yi fa nekk yépp kon sëñ sëñ Babacar bisimilah salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp eh, di leen sant di leen siyaare bu baax a baax a baax te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ngeen dolli ñu ay ñaan maa ngi siyaare bu baax a baax a eh, suñu eh, xalifa sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool ti wér ñi koy ñaanal bu baax a baax a baax di sàkku ci moom bi ñaan yi mu ñuy ñaanal ñuy wax amin rek yàlla na ñu dal di ñaanal tamit suñu jëwrin suñu afiya Bousso al imam ñoo ngi koy ñaanal fan wu gudd wante ak wér ak ñii mu xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi muy sëriñ Abdoulaye yëpp ñëpp mi ñu ngi ci biir ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd wante ak wér di ko sàkku ci yéen yàlla nañu ko yàlla may ñu yàgg ànd liggéey bi di liggéeyal sëriñ Touba ci jumaayam ji dolli ab soññe rek ci waa fédération daayira Guinée Conakry muy fédération boo xam ne Serigne Abdou Thiam moo ko jiite yàlla dogal man mi may vice président bi di leen soññ rek bu baax a baax a baax bu yàlla dogalee ngeen gis film bi di leen xam ne na ma leen ko waxe woon rek liggéeyab Serigne Touba la bu jëm fan ci jumaa yi sëriñ Touba ji ci Touba donc yaakaar naa ne addiya ñi ma fi jiitu sax war nañ ko addiya mën naa rëy lool lool lool waaye benn addiya mënul gën a rëy dërëm bi nga dugal ci jumaa yi sëriñ Tuubaa ji kon ku yàlla baaxe sëriñ bi boole la ci ñiy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci jumaayam ji war nga ne alhamdulilahi rabbil alamina te bu ma fàttiwut daaw suñu jëwrin euh, suñu afiya buso al imam am na kàddu yu mu fii ne seen liggéey bii day sëriñ Touba nangu na ko loolu wax dëgg yàlla murit bu mu doyut loolu man xawma lan moo lay war a doy kuy liggéeyal Serigne Touba ba ab imaam nela la liggéey bii ngeen di liggéey seere naa leen na Serigne tubaa nangu na ko loolu wax dëgg yàlla euh, doy dal nam xel may soññewaat rek yéen waa nun waa Guinée Conakry sens la bu rëy rëy ci ñun ah ñuy jéem a dollee góorgóorlu ci jaayante bi di doolee góorgóorlu ci liggéey sëñ Touba ci jumaa ji ndax kat ñaari ñaari ñaari ñaari sens am nañ ko ndax sëñ tubaa tudd na jumaam ji laataa mu fi jóge waaye sëñ Touba jaar na foofee Guinée Conakry kat noon na fii de dëkk bii de samay taalibe dana fi ñëw di fi liggéey ay addi yu set wecc di ma ko indi sama dëkk bee ci Touba loolu sëriñ tubaa bind na ko kon nag ku yàlla baaxe nga bokk ci jaayante bii sa dërëm di jóge foofee di ñëw ci jumaa yi Serigne Touba ji wax dëgg yàlla sam xel war naa daal te dafa jar sax nga jóge fi sax dem def fa aventurier pour sa dërëm jóge ginnaaw Guinée Conakry yi ñëw fii ci Touba ci ci ci ci jumaa yi Serigne Touba ji maa ngi sant bu baax a baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoom fi jiitu eh, wax yi toir fa kàll di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér de delluwaat rek di sant Serigne Abdoul Ahad yëpp yi nekk fi jiite ñu liggéey bi di leen xamal ne jiit yi ngeen ñu jiite da wax dëgg yàlla ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax a du ngeen sonn benn yoon du ngeen tay lépp loo xamante ni bii ñoo ngi fi jëf ngir yàlla lu luñ fi indi lu ne ngir yàlla ak yéen ak seen Pastef moo tax ndax saa bu ñu leen gisee yéen ci liggéeyab Serigne tubaab bi saa bu ñu leen déggee ñoo ngi leen di dégg ci liggéeyab Serigne Touba bi kooku ku mu jiite ab liggéeyab Serigne tubaab wax dëgg yàlla war ngaa dollee góorgóorlu te loolu rek la ñuy ci yéen loolu laa xam ci yéen loolu laa gis ci yéen ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax euh, kii nga xamante bi euh, moom la àndoon na muy Serigne Mout Thiam mooy fa teew moo moo fa présenté euh, moo yore daayira Baye Fall yi maam Cheikh Ibrahima Fall léegi nii rek dafa am am malaise mu daal di delluwaat kër ga waaye moom ci jaayante bi xam nga gis ngeen gis ngeen ko ci ñaari ñaari ajjuma la jëlandoo woon moom sëñ Moudou Thiam di la xam ne information bi comme ni ma ko waxee daaw ne bu ma delloo jàll na bu a baax a baax a baax di ñoo ngi leen tàllal suñu loxo nag sëñ imaam maa ngi leen tàllal suñu loxo bu baax ne leen dëkk ba Conakry comme ni ngeen ko déggee wax dëgg yàlla fu mu naqari di egg egg na fa waaye murid yi moom euh, seen yoon nekku ci ab dëkkër bu naqari sëriñ Touba lañ bëgg moom lañ gëm waaw moom lañ yaakaar te toujours mi ñu koy won waaw képp ku ngeen gis mu jógee Conakry ñëw ci màggal gi rek na ngeen xam ne wax dëgg yàlla ci ndimbalal yàlla ak yonente bi sëriñ Touba la ñëwee waaye du dëkk mu neex moo ko fi waaw ñoo ngi leen di tëll tàll suñuy loxo ngeen ñaanal dëkk boobu soxla nañu ay ñaan ay ndimal na ngeen ñu dolli ay ñaan ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla boole yàggal ñu fi lool ñu ànd liggéey bi di ko def ay ati at yu bare bare bari maa ngi yam a gàtt taawal sama kàddu fii di yeesalaat ak cant rek ndax xam ne liggéey bi daal wax dëgg yàlla am nañ ci cant bu baax a baax a baax information bi jàll na euh, ci Guinée Conakry Eh, am nañ ci posté bu baax a baax te eh, mi ngi ci kanam eh, dafa comme ni ñu koy waxee rek liggéey Sëriñ Tuubaa yëpp na nga koy bëggee mu doxee na noone dina am neneen nu muy doxee waaye loolu loolu loolu ci liggéey Sëriñ Tuubaa yëpp la ku ci sëriñ bi boolewut doo ci mën a bokk waaye day maa ngi leen di xamal ne yéen waa Conakry liggéey gis ngeen ku fetaan film bii day nga xam ne dërëm bi nga xam ne ñoo ngi koy dugal ñu ngi koy def bu baax a baax ci jumaay Sëriñ Tuubaa bi lan la ñu ciy def mooy entretien lan lañ ciy def mooy jullit yi nga xam ne am na lu ñuy itiwoo muy ñaam yi surtout jaayante bi lu jaayante yi añu jumaa yi nañ ci dollee góorlu bu baax a baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ euh, Babacar Ndiaye sëñ Ndiaye Saliou jërëjëf pas-pas bi rëy na lool ñu ngi lay sant di la gërëm di sant waa Guinée Conakry yëpp di ñaan sunu borom jeexal jafe-jafe ya fa nekk yëpp ci daraja yi sëriñ bi ci daraja yi jumaa ji